demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ak yàlla ak ña mu ko wax. mbokk mu yëpp murid yëpp ñu leen di fàttali eh, bis boobu boobu sëñ Ahmadou Mokhtar eh, ñu ànd ak bokk njaboot gi fas yéene koo def eh, ñëpp ko bokk ñëpp nañ ci nañ ko ko àndandoo rek te gën ci yokk suñu itti gën cee gën cee gën sàmm suñu gën gën gën cee eh, taxaw bu baax a baax a baax. ñu ngi leen ci woo bëgg yéen murid yëpp ngeen taxaw ci taxawaay bu mat sëkk te xam ne sëñ Tuubaa lañ koy defal defaluñ ko keneen sëñ Tuubaa la ñuy defal bis bi kon ngeen ko jàpp ngeen di jàppee yëfi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko moom. loolu noo koy woote waaye boole nañ ci murid yëpp murid yëpp lañ bëgg ñu taxaw ci taxaw suñ taxawaay ba mel suñ taxawaay bi bokk jullit yi bokki taalibe yi woote baa ngoog waajal màggalu xisrul muharram weeru tamxarit 1346 1446 téeméeri at centenaire ginnaaw bi Bamba Xaadimal Moustapha ñibbisee Touba Mbacké almaharousa ñu fas yéene ko waajal ci jitaay yu am solo tàmbali ko rabbi war a dem Louga le 15 juillet war a dem mubarak muy njaarim fa lépp amee woon waaye war a dem Dakar nag jumaay Masaliku Jinaan le 21 juillet loolu lépp nag ñu war koo tëj ginnaaw màggal gi le 27 juillet ci Qudus Touba incha waxtaan tënk li nga xam ne liggéey nañu ko mbokk yi nu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñ fenn asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu